amis téléspectateurs de Leral TV et de Leral point net comme nun koy defee saa su ne tey nag dañoo wàcc fii ci champ de course di marché bi nga xam ni fii la ñu aménagé ña fare woon fële ca euh, Sandaga comme ni ngeen koy gisee bërëb bi nag joxewul benn yoon que ne ñu ngi ci marché ndaxte dugg beeg génn bi nemmeewuñ ko comme niñ koy nemmee ci yenn marché bi li waral lu ne mel nag dañuy dekk suñu micro ki nga xamante ni rek moo di Vieux Touré di vis président wu marché bi mu daal di ci àddu. fii moom dayoo bi foo ko rek. weesu na ko parce que chande de course defe naa bu tur bi rek wax na lépp mooy champ de course fi ñu doon rawantee fas di fa dawal ay fas donc c' est pas du lieu boo xam ne c' est commercial par rapport ak Sandaga ba ñu jógee donc vraiment mettit bi moom kenn mënu ko mesurer parce que impact bi mu def kenn mënu ko mesurer ñu nemmeeku itam dugg bee génn bi euh, bëriwul da ngay nekk day mel ni sax amoo yëg-yëgu ne yaa ngi marché. waaye mooy li ma lay wax xam nga marché dafa am zone maanaam sit marché dafa am fu mu war a nekk ak fu mu warul nekk sëñ Fallou suñu jëwriñ ji nam si yàlla yàlla na yaxam sedd te borom bi xare ko àjjana da doon wax marché da nga koy teg fi nga xam ne nit ñi dañ koy gis ngay jaay lu baax te yomb. su boobaa marché ba dafay dox fii ñu ñu indi yow mii bi nga fi doon ñëw sax da nga xaw a réer ñu ngi la koy wan nii te bu ngay dugg si mii day mel ni yaa ngi nekk si fu ñuy élever ay ginaar parce que devanture bi sax dafa mel ni case de poulailler loo taxoon bi ñuy sàkku président pour ñu luñ ñuy defaral nañ si bokk bañ yu mel nii moo tax président si vision bu claire ak bëgg émerger Sénégal mu d'accord loolu ndax nit booy tabax sa kër sax defe naa ne di nga wax li nga bëgg architecte bi doolu ko defal comme ñun lay defaral ne day defar jox ku nekk caabeem mu ne nañ ñu si boole ñu si jox suñu xalaat léegi ñoom bi ñuy defar lii boolewuñu si moo indi erreur yi fi nekk nii di nga ko gis nii rafet na si bët mais c'est pas commercial déjà gis nga toiture bi nu mu wàccee ni muy tàngee nii yaa ngi toog muy tàng bi ngay dugg gis nga xet gi nu mu lay reyee nii si égout yi bi nga ñëw yaa ngi dépassé yaa ngi romb parce que yaa ngi laaj fan la ñu réwee ñu ngi lay yóbbu si beneen marché malien bi or que fii parce que devanture bi nu mu mel méngoowul ak marché ba pare fii ñu ñu indi dafa am bu taxoon comme site provisoire la moo tax ñu d'accord ñëw fi mais sinon duñ fi ñëw ndax du site commercial parce que ñaari at yàgg na yàggul donc comme ñun ñoo demoon sàkk dem si président de la république di ñaan mu defaral ñu suñu marché mu ne dinañu ko defaree te moom ba mu ñu koy wax nee nañu ku bugg omelette di nga toj nen kon dañu war a jug ñu defaral ñu delluwaat moo tax ñu ànd ñëw fii mais fii bi ñu fi ñëw ñoom waxtaan bi ñu tëraloon ñoom point yi ñu tegoon yëpp ñun respecté nañ ko moo tax ñoom bi ñuy ñëw la deux boobu fekk ñu fa waxuma sax bagage de mais buntu magasin yi sax fekk ñu ko fa parce que ñu soxla seen bunt jël nañ ko ba jaay ko feeraay donc dañ ñëw fekk fa ay tabax yu vide rek ñu daaneel toj ce qui veut dire que ñun devant Sénégalais yëpp ñun respecté nañ suñu engagement boo ñu delloo tuuti si ginnaaw boo déggee ministre bi bi muy doon inauguré lii muy taxaw mu naan suñu président les syndicalistes rebelles la maanaam Daouda Diouf ak Djibi Diakhaté na ngeen ñëw xool ni lu mel nii lañ doon bañ moo tax ñëwuñu woon parce que dañu buggoon taabal gi ñu toog waxtaan si ba juboo si kàddu yi ñu soog a jug mais ñun ñi sàkku bañu ñu woon jug te doon bañ ñoom ñu ñuy jaxaseeg askan bi yëpp askan bi koo romb mu naan la liñ leen defaral dafa baax jug leen ñëw lii lañ ci doon bañ tey nii parce que point yi ñu daakooroon mu taxaw di ko wax ba mu tojee la ñu gëj a gis ministre bi mu naan dinaa dajeeg yéen ba bañ ko fiy jëlee waaye nag gis nga doomu aadama li yàlla sàkk yëpp moom li si gën a bëgg donc ku koy toroxal boo mujjuwul di nga torox ñu nag ñaanaluñu ko mais nag lii mu def nii duñ ko bàyyee nii dañ koy bàyyeek yàlla parce que boo fekkee ay nit yoo xam ne nit ñi dañ leen doon rang di laaj ci dimbal ñu leen koy jox tey nga leen bëgg a yóbbu si ñoom ñuy nar a tàllal loxo loolu nit ki su nee baal na loxo waxu caaxaan la duñ koy yéene mais dañu koy bàyyeek yàlla yàlla mii àttee moom li mu def nañu àtteek moom moom fii nag dañuy demander solennellement a monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall que la mu ñu waxoon digoon ñu ko te ñu doylu ko ànd ak moom tax ñu def lii ñu def ñu ngi solicité audience si moom ba xamal ko li xew yëpp ak li am yëpp ndax moom aussi mu mun si àdduwaat ndax mbir mi mun a antu parce que moom bi mu koy bëgg li mu si bëgg yëpp moom la ñëw retourné waat ne la modernisation des marchés sandagam moo doon phase pilote bi moo tax ñu indi lii defar ko lii pour site de recasement bu Sandaga réussir après ay marché HLM topp si ak ak yeneen marché moom nag vision bu claire bi mu am ba prôné lii ñi mu ko tegoon seen loxo ñu ngi koy yàqal vision ñu ngi koy yàqal vision parce que moom defe naa li mu si séntu woon ak nii yoon bi ñu jaar du yoon bi benn boolewuñu si ñun acteurs yi ñaar li ñu waxante woon yëpp defuñu ko donc ñu ngi ñaan mu recevoir ñu ba ñu xamal ko lépp nu mu demee comme niñ ko ko xamalee woon ba Sandaga Leke ba moom yaramam yëg ko mu ne dina réparer injustice boobu mooy defar ndax mu mun ko defar parce que fii amul impact normalement nit boo koy déplacé war naa mesure d'accompagnement amul dara soo gisee aussi ngeen dugg site bi vide nii mel ni du marché c'est parce que li ñu tegoon si table bi moom la ministre bi Abdou Karim Fofana damay wax bien son nom respecté wul moo indi lii parce que euh, Sandaga dafa am nu mu tëddee te liñ ko doon woo yëpp si wax ko ni mu tëddee la parce que ñi ëpp si Sandaga dañu moom magasin yi waaye du ñoom ñoo ko doon jëfandikoo ñu ngi si yeneen affaire dañ koy dañ ko loué te Sandaga ñëpp xam nañ ne c'est le Sénégal en miniature c'est l'université commerciale soo déggee mooy wax ne lu tax c'est l'université commerciale parce que am na ay conseils yu nekk au niveau de du de la présidence de la République si booru njiitum réew mi ma si tudd kenn comme ku mel ni Idi Thiam ñooñu ñëpp fii la ñu soxeekoo si Sandaga Sandaga aussi day créer ay emploi non seulement ñun dañuy jël suñu ay jarbaat di leen ci teg mais gars yu bëri di si ay université ak yooyu au lieu de que ñuy reversé wu si dans la délinquance ñun dañ leen di dimbali woo leen Sandaga di leen jàngal li ñu bilingue day tax sax seen formation day gaaw da ngay gis ñu nekk fa trois mois 4 mois mën a jaay ba mën a dem ba nga xam ne sax des fois dañuy ropp ñi nga xam ne dañ fa nekkoon ndax seen bilingue bi quoi donc Sandaga du lu ñuy nax saay ñun ay commerçant lañ Sandaga c'est une zone stratégique te ñun contribuer suñu développement réew moo tax bi lakk bi amee yëpp kenn gisuñu ñu toj kenn gisuñu ñu sànni parce que dañuy wéyee ndigal di doon ay kilifa nekk ay gens yu civilisé bugg suñu réew émerger moo tax defuñu loolu moo tax ñuy dox ba daje moom pour mu defaral ñu loolu te ñun cër bi ñu war a jox xam nga lu koy waral boo gisee Covid bi bi mu amee. pratiquement mun nañu wax secteur yëpp a fermé secteur informel bi rek moo fi doon dox moo doon dugal eh, xaalis si keesu réew bi kon secteur boobu nga xam ne même mondialement manque mondial sax dafa génnee xaalis teg ko pour ñu formaliser xam nañu secteur informel boobu lu muy jëriñ donc li ñu koy ñaan mooy mu gën si dugalaat loxoom ñu formaliser secteur bi ñu mën a dem parce que réew mi béykat mii mu ko muy protéger di ko financer muy def ni su paree kan la koy jox commerçant yi ñoo koy jaayaat. industriel bii ngay gis nii créer système su paree mu génn si usine bi kan la koy jox ñun commerçant yi ñoo koy jaayet éleveur bi bi bii ngay gis nii bu yaree ba pare si ñun la koy teg muy ginaar gi di ya nag bi di xarmeeg yëpp ñoo ko demee donc ñun dañu war a taxaw parce que lépp suñu loxo lay mujjee te ñun xam nañ suñu valeur yar nañ ñu te liggéey rek lañ ñu xamal donc ñu ngi koy ñaan vraiment di solliciter même bu ñu gun mënugul recevoir mu waxak son ministre mu recevoir ñu wax wax yi ñu régler affaire ki dem parce que fii nii nii metti na metti boo xam ne accompagnement yi muy publicité di financier lépp daf si war a am pour que ñu mën a valoriser sit bi ndax ñeneen ñi laajte mode modernisation bi muy prôné ñeneen ñi ñu gisee loolu ti ku leen moderniser seen marché ginnaaw yi lay kàddu kii di Dame Niang di porte parole ànd taxawu sàndaga moom it mu ngi ciy àddu. waaw pour le moment ni ngi koy dundee xaw na difficile parce que depuis que ñu ñëw fii site bi day peine à décoller euh, léegi euh, li nga xam ne moom mooy euh, site bi soo gisee toujours mu ngi en chantier ni nga ko robee si bunt bi. en même temps que commerçant yu bëri euh, ñëwuñu ubbi seen place yi léegi association bu fi nekk euh, ñu ngi jéem a def le tout pour jox cantine ay locataires pour ñu ñëw ubbi pour que site bi mën na décoller clientèle bi ñoom ñu ngi dugg mais pour ñu fekk fi diversité si wàllu marchandise bi ñu bëgg moom moo fi amagul léegi nag loolu moo tax euh, fu nekk nii mën nañ wax ne mbir yi doxagul comme ni nga xam ne moom lañ ko yaakaare woon la mën a dégg nga ne diversité ci wàllu marchandise comme yan genre marchandise ñoo fi rare te ngeen soxla xam nga Sandaga spécificité lan la woon mooy soo fa duggee lépp loo bëgg da nga koy am balaa ngay génn si domaine bu nekk nag si habillement électronique euh, accessoire lépp loo soxla da nga koy am léegi na actuellement fi mu nekk nii euh, su nekkoon euh, ñi xam ne recasé nañ leen yëpp ñëw nañ ubbi seen place yi kon diversité boobu day ñëwaat fii léegi ne si wàllu habillement accessoire consort boobaa clientèle bi su ñëwee lu mu soxla da koy am léegi nag malheureusement loolu moo amagul ci sit bi te loolu lu bari la ko waral mooy euh, façon bi nga xam ne euh, délocaliser nañ ko cantine yi parce que bu ko le préfet di def waxoon nañ ko mu bàyyi ñu ñu liggéey ci ñu liggéey ci ci euh, dispersion géographique bi léegi ci boobaa dañ xëy na dinañ mën a waxtaan ak propriétaires yi ak ñi nga xam ne ay locataires lañ woon parce que soo xoolee Sandaga c' est presque à 70 pour cent des locataires pour harmoniser parce que soo xoolee Sandaga li nga fa daan fay si prix euh, magasin mënoo ko fay fii si site bi léegi nag dafa amoon waxtaan bu waroon jiitu bu waroon jiitu pour que ñu mën a sensibiliser ñëpp nga xam ne ñëpp dinañ mën a ñëw go nga xam ne propriétaires yi ak bailleurs yi dañ mën a déggoo dañ mën a wax même même langage si boobaa nag ñëw bi day yomb mais puisque étape boobu dañ ko baakale woon préfet da woon. loolu moo indi conséquence yi. Euh, ñu bëri ay locataire lañ woon euh, que li ñu doon fay Sandaga fële xam nga dafa bari woon parce que magasin bu 4 mètres carrés mënoon nañ ci fay ba 125000 ak ah, site bi soog di ubbi pour nga ñëw fay ku fa du yomb léegi nag dafa amoon liggéey bu ñu waroon liggéey ñun en tant que association ànd taxaw Sandaga ak ñi nga xam ne ñooy propriétaire cantine ak euh, li ngi les locataires. pour que ñu mën a wax benn langage nga xam ne suñu ñëwee fi peut-être nañ lay may deux à trois mois ñu nekk fi et puis diminuer le prix bi mais puisque préfet dafa préféré woon defee ko nu ko neexee euh, tordre la mais fexe ba euh, distribution bi am euh, borom cantine yi nga xam ne defuñu commerce daw ñëw jël seen cantine teg ko loolu nag dafa am conséquence si li nga xam ne cantine yu bëri ubbiwul. prix bi ñuy joxee ci cantine yi ndax mën nañ ko am ci xayma par rapport ak. non xam nga toujours propriétaire bi moom mooy xam. lu bëgg si kantinam ñun nekkul ñu ñooy décider prix propriétaire euh, xam nga su nekkee Sandaga peut yaa ngi doon joxe ay cent vingt cinq mille cantine di fay un an cash fii yow yaay xool yaay ni nga mën a amortir si prix ba xam ne lii arrangé na su nekkee defoo commerce. waa su nekkee defoo commerce yow yaay mën a décider par par association bi. bon avant ñuy ñëw fii dafa am euh, fu ñu tolloon ak autorité étatique yi mooy ne euh, dañoo signé woon. oral bon signé wuñ sax mais dafa am ay propositions yu ngi leen defoon ñu accepté ko une fois ñu rejoindre site de recasement bi mooy ne des engagements yoo xam ne maanaam dans deux ans Sandaga dina pare ñu dellu retrouver suñuy candidat parce que fii site de recasement provisoire la et que deux ans rek lañ fi war a def deuxième mooy mooy maquette bi nga xam ne liggéeyoon nañ si ak l' ancien ministre du commerce Alioune Sarr bu valider ko woon à l'unanimité au niveau de Sandaga et que le le ministre du commerce ministre de l'urbanisme mu mujjee ñëw di Fofana daf ko changé woon dañ doon exiger pour que maquette boobu revenir parce que maquette boobu dafa amoon ay magasins yu nekkoon tout autour du bâtiment comme euh, nu noñ ko xamee suñ cosaan nuñ ko xamee si marché ah ko loolu daf ko dingi woon mu nekk benn espace bu yaatu boo xam ne soo xoolee du méngoog marché et que 99 cantines yooyu da doon engloutir presque 99 commerçants kooku da doon permettre su ñuy defar centre commercial yi nga xam ne dañ siy dugal cantine yi duñ dem en hauteur parce que soo demee en hauteur li nga xam ne moom moom la ñuy déployer si marché yi nga xam ne dem nañ troisième quatrième étage mooy li si ëpp troisième ba wala quatrième bi mujj ay euh, éleveur ginaar ñoo ko mujj luwee def ko ay poulailler alors que xam nañ ne actuellement fu mu nekk li si ëpp commerce mënut a weesu premier étage fii Sénégal parce que loolu la nit ñi miin peut-être deuxième étage bi ñu def si ay tailleur léegi maquette boobu moom la ñuy revendiquer moom lañ bëgg mu mu ñëwaat beneen bi aussi su nekkee ni ki euh, après Covid 19 bu xaw a metti bi en même temps euh, ñu passé tabaski juste après la tabaski nga war nañ recaser si benn site de recasement lu mu gàtt gàtt ak loo gàtt gàtt xel war nga xam ne ñi soxla nañ ku lay accompagner financièrement parce que foo sànc dina métti et li nga doon ci denc sa poos xëy na balaa mat weer nga lekk ko avant site bi di dox. kon nag su si état su nekkee yow état ba ngay bu ngay juddu jàngalu la gungeewu la bu ngay teg sa entreprise peut-être cinq mille nga déparé dix mille accompagné wu la nullement nii su côté finance nii su côté peut-être xel xalaat nga dem teg teg yooyu ba nekk euh, benn am sa benn entreprise bu taxaw peut-être ngay dimbale ay nit dimbale say doom dimbale say baar-baar say rakk kon lu ko war a animer mooy nga fexe ba yow loolu di sa liggéey mu bañ a yàqu. mu bañ a yàqu parce que su yàqoo peut-être ñu nekk seen si derrière yow góor ñi xëy na suñ mënatoo la jàng peut-être amuñu benn soutien financier bi nga xam ne mën leen a accompagner mën nañoo doon ay wéyu wala ñu doon ay caga su boobaa su boppam ginnaawam lay këpp kon yow war na mën accompagner ba nga mën a préserver loolu li nekk njaboot gu nekk si ginnaaw nga mën leen a téye téye ba nga xam ne ëllëg dinañ mën a devenir nekk quelqu'un léegi nag looloo tax euh, côté accompagnement boobu ñu ngi koy euh, demander di ko exiger toujours parce que jàpp nañ na lu jaadu la et lu lu état war a war a war a def la. Khadim Touré di jaaykat foofee ci marché ba moom it muy xamle ne situation yi ñuy dund jafe na lool. waaw fii jafe-jafe ñu fiy dund bëri na bu ñu ko comparé ak marché Sandaga sincèrement parlant du benn ci dara benn domaine parce que fii sincèrement xaw na roxe benn te nit ñi miinuñu ko euh, boo gisee presque fii léegi ñu yàgg fii depuis lors Euh, maax nga seen invité ji presque dañ leen di compté ah, li ko waral nag mooy fi ñu nekk moo xaw a roqee accessible euh, li ñu doon xaar nag du lii euh, en tant que commerçant ñu jógee ñu benn marché boo xam te ni peut Sénégal képp ko xamoon mu amoon benn maanaam benn pouvoir d'achat boo xam te ni peut-être wala clients yi daan fa ñëw agogo ñu indiwaat ñu jëlee ñu fa indi ñu fii metti na trop sincèrement parlant parce que it li ñu daan xaar ci ci état doon toon lii quoi. bu ñu jëlee woon marché Sandaga euh, c'est normal ñu war ko defar mais bu ñuy recaser aussi nañu mettre foo xamante ni au moins que ñun ña fa nekkoon ñu fa yëg suñu bopp euh, mais jëlee nañ ñu fa euh, sans subvention sans accompagnement sans rien ñu ñëw andi ñu fii ah mais ñoo ngi fi teewut dañu toog di xaar yàlla ñun ay croyants ñu dañu gëm ku ñu gëm borom bi lañu dañu ñëwut di continuer suñu liggéey mais tamit li gënoon daal mooy ñu déglu ñu nga xamante ni peut-être tey ñooy yëngu ci commerce. ndaxte bu ñu indee fii tey ji ñu waroon a def ñu waroon di ku fi daan nekk daan gagné Sandaga benn 100000 francs da ñëw fi toog toute la journée te ñu parvient même pas di gagné benn 10 000 francs nga yor famille yor njaboot sa dépense du taxaw sa dara du taxaw mais tu serais obligé du que duñ ñëpp doole rek mais sincèrement parlant wax dëgg fa yàlla bu ñu la waxee dëgg marché bi doxul. doxul moo tax magasin yi fi tijji tuuti na euh, clientèle bi ni mu waroon a ñëwee li ñu ko doon xaaree gisewuñu ko ni euh, teewul dañu obligé resté ñeneen ñi fi duggoon sax ñoo ngi génnaat di dem. am na ñoo xam ne ñëwoon nañ fi ba installé wu toog nañ fi ay fan mbir mi doxul dañu jóg dem ñi fi toog tamit actuellement dañu ñàkk pexe rek mais bu ñu gisee leneen lu ko gën dañu fiy jógee dem suñu yoon quoi dem wari leneen. mu nekk marché boo xamante ni bëri na ñoo xamante ni xamuñu fan la féete fii ci Ndakaaru ndaxte euh, ruqe na lool waaye nag ma nga faree ci fi nga xamante ni moo di building communal ñi fiy ñëw nag di réer bëri na lool comme niñ ko déggee rek ci biir reportage yi ba tax na tamit ñoom ñi ngi sàkku rek ngir ñu ñoŋal leen delloowaat leen ci fi nga xamante ni moo di marché euh, Sandaga foofee nga xam ni bërëb la bu ñëpp xam te it seenub foofu la doon gën a euh, bokk na ci njëwriñ bi ñu daal di leen joxit seenub ndàmpaay ndaxte jamono ji yittewoo nañ ko lool